asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal di am contentement ak mbégte comme ni ko safoo di ko def di leen dalal fii seen chaîne Dakar People te nag ñu ñëw fii Castor clinique Kourabeur seet si kilifa boroom xam-xam ku kenn dootul présenté Cheikh Omar Thiam ñu koy dàkkantalee borom xalima bi sëriñ bi nuyu nañ la. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah. seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallama uh, waaleykum salaam wa rahmatullahi sang bi mbokk mu tedd mi nuyu naa la nuyu naa àddina nuyu naa Sénégal nuyu ñëpp bismillah di bëgg ànd ak yow ci laaj ak tontu ci li ma yàlla xamal boo ma laajee ma tontu la ca lu ma yàlla xamul soo ma laajee ma ne la xamu ko bismillah bismillah xam naa balaa ñëw tey ñu seet la pour am ak yow waxtaan waxtaanee xam-xam balaa ñoo dugg ci waxtaan bi rek bëggoon nañ la bëggoon nañ la laaj question bu si njëkk buggoon nañ la laaj lan moo tax ñu lay dàkkantelee borom xalima bi. waaw alhamdulilah euh, maa ngi sant yàlla maratan uxra muy beneen yoon euh, ndax jaam bi moom sant rek moo ko war euh, bu la yàlla dafa la xewal dafa la tawfiix da nga koy sante ci loolu. borom xalimba gi nag boo ko déggee mooy xalimba gi nii maa ngi ko jëlee ci suma maam moom a ko jox nan laa def baam ko dama ko tarbiyu ci moom liggéey ko ci moom ba mu gërëm ma ñaanal ma yàlla na ma am xalimba gi jël ko mu ne ma nag sama set ma ne ko ah mu ne ma lenn rek laala la ciy ñaan ma ne ko mooy lan mu ne ma bul ci liggéey lu aay bul ci def loo xam ne neexul yàlla waaye lépp loo ci bind lépp loo ci liggéey rek moom dana xam bu soobee yàlla dégg wax bi te xalimba gi bari na buur yoo xam ne fal nekku nañ fii Sénégal nga leen di dégg wala bari na ku bëgg a falu wala ku bëgg nekk dara xalimba gi jaar nga ci moom muy ci buur yi yi nga xam ne nekkoon nañ fi nii nga dégg leen dégg nga muy ci président yi ñoom ñëpp kenn ku nekk rek yow xam nga xalimba gi bu baax a baax a baax loolu moo tax ñu may dàkkanteel xalimba gi xalimba gi daal lépp loo xam ne teg naa ko ci bind rek yàlla moom dana ma nangu loolu te danaa ci gis résultat incha allah bu soob yàlla waaye nag def noonu ma bul ci bind mukk luy ñaaw wala loo xam ne luy yàq la loolu daal soo maam waxoon na ko ca famille ba ma bokk du ku nekk koy xam de dafa xam melokaan yooyu xamee xam euh, jikko yooyu yore ñu jox la ko waaye du ku nekk lañ koy jox alhamdulilah macha allah. macha allah leeral bi am na solo trop xam naa bu ñu génnee ci loolu rek ñu bëgg ñu jël commencé waxtaan bi question bu si njëkk bëggoon nañu waxtaanee mbirum seet bu si mel ni listixaar lan mooy njëriñu seet ana tamit lan mooy listixaar ana naka la sëriñ di listixaare waaw jërëjëf ci laaj bi nga laaj boobu moom alhamdulilah dañ ci sant yàlla eh, listixaar yonentu moo ko santaane sallallahu alayhi wa sallam xaddis yu bëri rot ci da ci wax dégg nga yonentu nee na sallallahu alayhi wa sallam kenn ci yéen su hittihoo mbiram na jàpp ba set julli ñaari rakkaha jàng la may jàng ñaan yàlla tëdd yàlla wan ko mbir moomu noonu man nag ma xam ci loo xam ne macha allah samay rawxaan ak samay eh, légéyukaay su ma tëddee wax li may wax pare rawxaan bi nga xamante ni mooy kilifaa rawxaan yi ah ñoom ñooy dem seet mbiram waa ji wax ma luy mbiram luy soxlaam lépp loo xam ne mbiram la su ko defee ñoo xamal ma ko su ko defee nag li sa xaar boobu man su ma ko defee ba pare incha allahu bu soobee yàlla lu ma la ci wax rek bindal bee téere nga teg xam ne loolu da nga ko gis su ma leen a génneel sarax génneel sarax su ma leen defal nangam defal nangam su fekkee bëgg ngaa mucc waaye nag su fekkee dama laa wax ngay dëgërante man ak boobu kooku man duma ci man dara waaye su ma la waxee nga def li ma wax rek jàmm ak salaam la nga ciy xam listiqaar daal borom xam-xam yépp nangu nañ ko dëppoon nañ ci euh, sunna la yenentu moo ko def santaane ñu def ko kon alhamdulilah macha allah loolu moom dañ ciy sant yàlla bu baax a baax a baax baax macha allah leeral yi am na solo trop bu ñu paree ci loolu bëggoon nañ waxtaanee mbirum ubbeeku parce que jamono yi ñu toll dañuy dégg ay nit yu bëri dañuy dégg ñu ne nit yooyu dañoo tëju te tamit dégg ci borom xam-xam yi ñeneen lu ko waral lenn la rek mooy ñàkk ubbeeku lan mooy njëriñu ubbeeku. waaw ubbeeku moom doomu aadama dafa war a ubbeeku su ubbeekuwut mbiram du dox ndax jamono ji ñu nekk ni du jamono tëju jamono ubbeeku la ubbeeku nag benn dana am lu koy waral ñu liggéey la dana koy waral wala. sa àndandoor bu nekk ci yow boo xam ne dafa soxor di la yàqal di la gàllankoor boobu tamit dana koy waral waaye képp koo xam ne yàlla def na nga tëju nga bëgg hubbeeku ci kàttan yàlla ak ci mbaaxam boo jokkoo ak ñun incha allahu dañ la hubbi te buñ la hubbee dañ la ciy defal kaaraange ba pare nag te dootoo tëju loolu hut xam ko loo yootu jot ko loo dugg mu sotti loo yootu xam ko kon wàllu hubbeeku moom dafa yaatu yaatu koo xam ne jéggi na dayoom ba dem na sax ci koo xam ne dafa jàng ba pare bëgg xam léggéey soo dikkee ci man wax ma ko dama naan la demal ci place bi nga bëgg a moo xam ministère la moo xam foo bugg a liggéey dama naan demal ci place boobu nga tibb ci suuf si nga andil ma soo tibbee ci suuf si andil ma ma liggéey li ma ciy liggéey jox la ko nga dem sangoo ko balaa cangat ga da jeex soo fa déposé kii ñu xoolal na la kaay ñëwal ñëwal nga liggéey kooku moom alhamdulilah àddina bi yépp dama ciy liggéey macha allah même koo xam ne dafa bëgg këyit nekk ci bitim réew dugal ay kayit mu tëx a génn wala muy lijjante kayit mu tëx a sotti dama naan la man demal fi nga dugalee nga tëbb ci suuf sa wala nga xam ci suuf su nga andil ma ma liggéey ci li ma ci liggéey wala su fekkee bitim réew xam nga mënumaa mënumaa jot ci suuf sa dama la cee dugal xalwa xalwa xam na ñetti fan am na juróom-ñaari fan am na ñeen fukki fan ak benn muy 41 jours su ko defee dama la cee dugal xalwa ñaanal ci yàlla su ma la ci ñaanalee yàlla incha allahu balaay xalwa ga da pare ñu xoolal na la kaay nga jël sa kayit yi kooku moom dama ciy sant yàlla àddina bi yépp nangul nañ ma ci ràññee nañ ma ci alquran nag wa ama bi nihmati rabbika fa hadis xewal bu la yàlla jagleel nanga ko ko sante loo rag la macha allah. macha allah leerale yi am na solo trop bu ñu mënuñ bu ñu paree ci mbirum ibbeeku rek bëgg nañ tamit waxtaanee mbirum kaaraange parce que daanaka mun nañ ne ñaari mbir yi nekk na li nga xam ne sorante wuñu am nañ ay connexion ci biir seen diggante. waaw kon euh, ubbeeku moom ak kaaraange ñoom ñoo xànd nit su xubbeekoo dafa war a xam kaaraange kaaraange nag man maa ngi koy liggéey ci juróom-ñaari garab ci laa koy liggéey yoo xam ne dañuy am dég ci laa koy liggéey seeni xob ak seeni reen ak seeni xas ci laa koy liggéey benn saar ci alquran boole ko bind ko sangoo ko gis nga kaaraange kooku yow bu ma la ko liggéeyal jox la ko nga koy sangoo gis nga fi nga koy sangoo su fekkee fu mel nii fu fu fu waaw la nii maanaam boo fa sangoo bu fa weñ dalee sax dafay dee ndekaaraange gi foor gi nga xam ne moom la foor su fekkee ba tey timin dañ koy liggéey ci ndombo dégg nga ba tey timin kaaraange googu dañ ko du léggéey ci wàllu jaaru timin timin am nañ ci ndomb goo xam ne buñ ko liggéeyee ba jox la ko incha allahu nga takk ko yow moom ku la fexeel du sotti ku la liggéey du jàpp loo waaye def ci yow mu dellu ci moom kooku moom alhamdulilah sant nañ ci yàlla bu baax waaye kaaraange daal ni may liggéeyee wàllu ubbeeku noonu lay liggéeyee wàllu kaaraange ci anam bu nekk nag dañ ci liggéey alhamdulilah macha allah. macha allah leeral yi am na solo trop xam naa bu ñu paree ci loolu rek bëggoon nañu waxtaanee jafe-jafe yi nga xam ne yenn jigéen yi ñu ngi koy am ci seen néegu sëy yu ci mel nii dinañ sëy ay ati ati ati at amum doom nekk yi nga xam ne daf leen di të. sëriñ bi lan mooy waral lu ni mel ana lan moo mun faagaagal li ni mel tamit. waaw jërëjëf ci laaj boobu nga ma laaj am na solo. Euh, jigéen danay dem néegu sëyam dafa sëy ñeenti at juróomi at du mën a am doom lenn nag dana ko benn muy feebar wala benn muy liggéey bu ñu def ci moom wala benn muy àndandoor boo xam ne moo nekk ci moom wala muy loo xam ne sax dafa nekk ci borom kër gi waaye nag lu ci mënti xew rek bala ma lay liggéeyal dama lay xoolal seetal la ba pare su ma la seetalee ba gis la danaa la wax nag fi ma la war a jaar ak li nga xam ne moo la xam ne moo tax nga xamoo doom ndax euh, euh, résultat wu sëy mooy doom jigéen buy sëy taxamul doom sëy ba du dara te jamono ji bëri na kër goo dem ñaari jigéen nekk fa di sëy kenn ki xam doom kenn ki xamul doom ki nga xam ne xamul doom duñ ko def muy dara dañ koy gaaru xaale di ko wax wax ju naqadi lu bon lu nekk rek ci moom lañ koy teg te loolu du lool sëy nag mbiram yàlla la waaye bénéfice ba mooy doom képp koo xam ne yaa ngi ci biig néegu sëy xam doom jafe la am doom tële la incha allahu man dama koy liggéey te fu ma koy liggéey mooy ci ganaar laa koy def bu ma ko légee jox ko ci ganaar def ko ko ba pare moom ak ganaar ki ngay boole nga togg ko yow ak sa borom kër ngeen lekk ko su ngeen ko lekkee ba pare incha allahu su ngeen xàndee da ngeen xam doom loolu moom alhamdulilah li mu ci liggéey sant naa ci yàlla bu baax a baax a baax a baax waaye nag ni ma la wax noonu jàpp ko bu baax benn feebar dana koy waral ñaareel ba mooy mbiram xàndandoor muy rab wala muy faru rab wala muy jinne dana koy waral wala feebar boo xam ne dafa nekk ci borom kër gi waaye lu ci mënta xew rek man loolu incha allah ku ci jokkoo man ci kàttan yàlla ci mbaaxam danaa la ci defal ñaan ba yàlla defal la ci ndam tey jii may wax ak yow lu ma ci xam ci turandoor kenn xamu nu mu tudd bëri na. koo xam ne sëy na fukki xat mënta xam doom mu ñëw ma defal ko li ma ko defal ñaanal ko yàlla mu yegg balaay xan ma da jeex mu xam doom loolu moom alhamdulilah sant nañ ci yàlla bu baax macha allah. macha allah leeral yi am na solo trop bu ñu jugee ci loolu rek bëggoon nañ tamit waxtaanee xew-xew yi nga xam ne moo am si àdduna bi jafe-jafe yi nga xam ne nit yi des fois moom la ñuy jànkonteel parce que daanaka nit des fois dina dugg ci ay mbir doo xataa doon sax coobareem mu dem ba ci digg bi du loolu du ko gënal mu bëgg ci deñ bëgg ci jóge doon loolu doon li nga xam ne day doon jafe-jafe day doon tiis tànge lu méttee métti du si du du du ko du si mun a génn lu koy waral ana lan bi tey jii nit boo xam ne loolu jànkoonte na problème bu mel noonu lan moo koy faagaaga. la am na solo xam nga nit bala may dugg ci mbir wax naa la ko ci tàmbali maaw daf ko war a seetlu daf ko war a xool gis nga soxna si nga bëgg a dugg xoolu ko seet ko ba xam dégg nga eh, yow jigéen yow tamit góor gi nga xam ne moom nga bëgg dugg pour sëy ak moom. seetlu ko ba xam ndax seen i biddiw ànd na wala seen i rawaan ànd na wala seen i mbir ba tey tamit ànd na waaye ba tey tamit liggéey bi nga bëgg dugg wala mbir mi nga bëgg a dugg na ko gëstu na ko seetlu ndax li ma la wax ci gannaaw xadis la yenentu ko wax sallallahu alayhi wa sallam muy listixaar dégg nga kon boo ko seetloo ñu wax la ci ne la jaaral yoon wi defal lii ak lii soo ko defee li nga mën ko ci am bëri na tey nag koo gis mu nekk ci problème wala mu nekk ci jafe-jafe mooy dafa tëb a dugg ci mbir te dafa ci listixaar seetluwut ko te loolu baaxut loolu nag maa ngi ñaan képp koo xam ne yàlla def na nga déglu ma wala nga seetaan ma su la yàlla nammee dimbala laa la wax nga danga nga ko ak man ma gindi la teg la ci yoonu parce que man dimbale jaame yàlla yi jëriñ jaame yàlla yi moo ma tax a jóg ndax doomu aadama la yàlla dénk mu baax mu xam ko ci li li nga tene nit ñi ci ngay dimbalee jaam yàlla yi nit nag bala mooy xam kan lan la doon mooy nit xam problème ñëw ci yow nga dimbale ko ba mu tooraleem boobu dal di man loolu mooy sama mission moom ma tax a jóg kon daal képp koo xam ne yàlla dimbale la ñaanalu ma ko kenn nag muy jafe-jafe gàllankoor ñaanalu ma ko kenn bu kenn xam waaye ku ko yàlla natoo rek soo jokkoo man dinaa la ci dimbale ci kàttanu yàlla ak ci mbaaxam incha allahu taala. macha allah leeral yi am na solo trop xam naa mënuñu tëj waxtaan bi sans pour autant ñu waxtaanee mbirum loto. parce que daanaka yaa ngi ciy yëngu te mun nañ ne suñu borom may na la si ay may yu am solo. waaw mbiram loto moom kooku sax dama noon dootuma ci waxati parce que alhamdulilah rek laa ciy wax sant yàlla ndax li ma lay wax rek barki démb rek moo ci mujj muy ajjuma ji. suyal naa ci fukki nit ñoo xamante ni kenn ku ne ay ay millions laa la wax moom nga gañee boo bëggee suyal loto nag wax ma ko dama naan la waa baax na. ma gas def ci gëstu su ma ci defee gëstu ñu ne ma kii de bu joué dana gañe waaye yoon wi ak yoon wi moom la ñuy jaar su ko defee ma jaarale ko ci yoon woowu ñu juye ko yàlla defal ko ca ndam maa ngi sant yàlla man bu baax man Cheikh Omar Thiam maa ngi sant yàlla képp koo xam ne jëflante naa yow ci wàllu mbiram loto rek mooy ci Sénégal mooy ci foo mënti ne ci àddina bi lépp su ma ci jëflante yow da nga xam li nga bëgg yàlla dana la ci defal tawféex ak taysiir ci mbaaxu yàlla ak ci kàttanam mbiram xam naa ci ndam man alhamdulilah macha allah waaw. macha allah waxtaan bi am na solo mais daanaka waxtu dafa nekk li nga xam ne dafa doon li nga xam ne daf ñu tënk xam naa dañuy ñëw bàyyi la nga tàggoog suñu mbokki internet yi. waaw xam naa li may tàggoo rek mooy ñaan yàlla yàlla def jàmm def mucc yi def ko ci àddina bi waaye di wax ne daal jamono ji ñu nekk nii problème yi bari na jafe-jafe yi bari na xale jigéen ñi bëgg nañ jëkkër man nañ koy xam. ñii am nañ jëkkër mënuñoo jubóog seen borom kër yi wala mënuñoo am doom képp koo xam ne daal yàlla dénk na la loolu wala nekk nga ci problème boo jokkoo ak ñun incha allah dañ la ci ñaana yàlla dañ la ci dimbale dañ la ci xettali rawatina na xale bu jigéen boo xam ne toll nañ ci xam jëkkër bëgg xam jëkkër te mënu koy xam soo jokkoo ak ñun ci ban weer lay nekk ñu ci octobre buñ lu ñu koy liggéey jox la ko balaay octobre bu de del si déwén da nga dem ci sa néegam sëy wala sax bala ñuy wax deux mois ci kattan yàlla wala trois mois yàlla dana la dimbale da nga xam jëkkër am nañ ci benn tegtal boo xamante ni lépp lu weex lañ koy bu ñu ko légee ba pare benn téere laay doon jox la ko nga takk ko soo ko takkee balaay téere ba de tilim maanaam lépp lu weex lay doon lu blanc bala mooy tilim danga gis ko lu wax salaamaaleykum kooku moom alhamdulilah sant yàlla même jigéen ju xam bëgg xam doom tamit kasaalik ay dan Cheikh Omar Thiam daal mu ngi nii dimbale jaami yàlla xettali jaami yàlla yi moo ma tax a jóg mooy sama mission képp koo xam ne nag yàlla nar naa dimbale danga nga jokkoo ñun ci kàttan yàlla ak ci mbaaxam ma lay xamal ne nag man lépp lu may liggéey maa ngi koo teg ci yàlla rek ci laa ko teg parce que def mu xam ñaan mu xam wala liggéey mu xam yàlla la soob yàlla la ne innama amruhu isharada shan an yaqula lahu kun fa yakun yàlla rek mooy boroom kun man nag jaam laa ci jaamam yi eh, mbindeef laa ci mbindeefeem yi waaye wax na ci xadisu xursi si nee na sama jaam bi du dëñ di ma jege-jegelu ci ay nawaafil ay jëf yu baax ba ma sopp ko su ma ko soppee nekk loxoom nekki tànkam nekk léppam kon bu yàlla nekkee sa lépp loo ñaan yàlla mu nangu loo def mu nangu alhamdulilah maa ngi sant yàlla di ñaanal lépp di wax ne gërëm naa leen sant naa leen ci seet bi nga xam ne moom ngeen ma seet ci fii ci Castor alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin yan yàlla def jàmm ci réew mi defal ko Euh, président Macky Sall defal ko képp ku koy jàppal ak képp ku ànd ak moom def ko ci julli ñi wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu